أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko ñu ngi leen di bismillah ci jaar jaari yonent yi wala histoire yonent yi alayhimu salaam fa qisasul anbiya qisasum wa ibar nettali nit ñi histoire yonent yi nettali bu ñu lay nettali la nga jële ci xam-xam waaye nga jële ci ak waar borom bi tabaraka wa taala mi ngi wax ci quran nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awxayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin borom baa ngi wax ci quran yow muhammad alayhi salatu wasalaam man yàlla maa lay nettali nettali yi gën a neex yi gën a wér yi gën a dëggu ci nettali yi nettali yoo xam ne man maa la koy wax yu ci alquran bi ma lay jox borom bi tabaraka wa taala waxaat ko ci quran ne ko nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq man yàlla maa lay nettali istuwaaru yonenti ci dëgg borom bi waxaat ko ne faqsusil qasasa laallahum yatafakkaruun nettalil nit ñi histoire yi ndax ñoom ñuy xalaat ndax ñoom ñu mën a comprendre xam li yàlla tabaraka wa taala bëgg kon hadihi l ayat tusiru ila ahamiyati l qisas wa kayfa annaha manhajun qur'ani rabbani asin li yusabbita bihi nabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wal muminina min ba'dihi la'allahum yatafakkarun wa yata'ammalun wa ya'tabirun histoire yi mooy aaya yi nga xam ne moom la ñu wax dafa am lu muy joxoñ nit ñi di leen orienté di leen jubal ci yitte gi nga xam ne jaar-jaari yonent yi ak seen histoire am na ko ndax jaar-jaari yonent yi ak seen histoire aw dundin la woo xam ne Qur'an def koo nettali lan moo tax Alqur'an nettali ko mooy yàlla wax na ko pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am sabaat moo tax noon yi tey di bañ ñu jàng Alqur'an ndax Alqur'an soo ko jàngee rek. kenn du la mën a détourner yàlla fan la formé yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba yonent bi dëgër kenn mënulu ko dara fan la ko yàlla formé ci alquranu karim yonent bi saa salaam fan la formé sahaaba yi ci alquranu karim moo tax mu ne yàlla nettali na yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam histoire yonent yi li yusabbita bihi nabi wal muminin yàlla nettali na yonent bi alayhi salaatu wasalaam histoire yonent yi ngir yonent bi mën a dëgër ak jullit ñi ànd ak yonent bi ak ñi ñëw ci ginnaaw ngir ñu mën cee xalaat laallahum yatafakkaruun waaye du yàlla nettali ko histoire yonent bi nii rek après pour mu jeex non laallahum yatafakkaruun pour ñu xalaat ci soo jàngee histoire Moussa ak Firawna nga jàng histoire Namrud ak Ibrahim nga jàng histoire nuux ak maasam mbokkam yi peuple am ba da ngay xam ne yàlla tabaraka wa taala lu mu wax rek mooy dëgg ne mujj gi lu mu yàgg yàgg rek bëre bukki la ak mbaam yàgg yàgg rek kan mooy daan mooy bukki kon loolu ñu xalaat ci waaye ñaareel bi wa yataamaluun ñu settantal bu baax a baax wa yaatabiruun mais ñu deytalu ñu waaru ci histoire yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala nettali yonent bi alayhi salatu wasalaam wa zakara allahu subhanahu wa taala lana fi kitabihi alkarim qisasan kasira an al anbiya baaduha mufassal wa baaduha mukhtasar borom bi tabaraka wa taala nettali nañu ci téeréem bu tedd bi muy alquran ay histoire yu bëree bëri ci ay yonent ci nettali bu mu ñu ko nettali lenn ci histoire yooyu yàlla daf ko tënk mais lenn daf ko firi mu leeral ko alladina sumiya lana minhum arrusul xamsa wa isirina rasulan jaa zikruhum fi badi alayat alkarimat wa minha qawluhu taala wa tilka hujjatuna ataynaha ibrahim ala qawmihi نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وإلياس ويونس ولوطا wa kullan faddalna ala alaalamin borom bi tabaraka wa taala am na ay yonent yoo xam ne daf ñoo tuddal seen tur ci alquran ñooñu 25 lañ borom bi tabaraka wa taala wax seen tur ci ay aaya alquranu karim ci aaya bii di ñëw sunu kanam yàlla nee na lii ngeen gis day sama lay la man yàlla tabaraka wa taala samay preuve yu leer maa ko indiloon ibrahim ci kaw nitam ya borom bi ne maa yëkkati daraja ku ma neex ci mbindee fi yàlla yi man yàlla ko xereñ laa man yàlla ko xam laa naka noonu laa maye woon isaaq ak yaqub kenn ku nekk ci ñaar ñooñu jubaloon naa leen nuux kazalika jubal naa ko démb ak njabootam daawud suleymaan ayub yusuf yëpp ay yonent la yoo xam ne yàlla wax na seen tur haarun zakariya yahya isa ilyasa ak ismail yunus luut ay yonent la yoo xam ne yàlla wax na seen tur ci alquran soo xoolee yonent yooyu ñaar fukk lañ ak juróom borom bi tabaraka wa taala waxaat في تبيان سبب هذا التفصيل الكثير لقصص الأنبياء في القرآن الكريم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فعادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين برام بي وخ يونتي عليه الصلاه والسلام وخ جولي ني من يالا تبارك وتعالى داي مالا انديل اك لير بو خامتene li tax ma won netali la yenn yonent ci Qur'an li tax pour yow yonent bi nga mën a dal nga mën a am sabaat nga mën a dëgër dara dootu la yëngal lu mbalit mi am doole am doole vague yi yéeféer yi lu ñuy am arme nga mën a dëgër yow dara du la yëngal mbokk yi yàlla tabaraka wa taala yemul rek ci wax yonent bi ne ko pour nga mën a am sabaat nga mën a dëgër waaye mu ne ko wa jaaka fi hadihi alxaq wa mawizatan wa zikra lil muminin lii ma la indil dëgg rek moo ci nekk ak lu lay waar waaye bu yemoon foofu rek ñu xam ne yonentu beeku moom mu ne ko wa zikra lil muminin ak jullit yi nga xam ne ñoom ñoo gëm yàlla ànd ak yow ndeke kon qisasul anbiya dafay dëgëral yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam waaye daf ñuy dëgëral ñun ñi nga xam ne ñun ñoo gëm yàlla wuyu si woote yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi إذن تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وفصل في الحق الذي اختلف فيه الناس في تبيان لكثير من الخلل التاريخي الذي ورثناه وورثه الناس فجاء القرآن ليصحح هذه الأخطاء التاريخي ويظهر الحق bokk na ci li tax yàlla dañu nettali histoire yonent yi mooy waxul rek ne day dëgëral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais nit ñi dafa am histoire yu ñu jàng yu ñu fi fekk nit ñi bind ko wax ko nit ñi fekk fi ay aada aada yooyu ak histoire yi nekk yu dëng nekk yu jaaduwul misaal rek da ngay dégg ñu ne doomu aadama ci golo la jógee loolu rek doy na ci misaal yàlla tabaraka wa taala nettali ñu histoire yonent yi pour caaxaan yooyu nit ñi di wax wala caaxaan yooyu nit ñi donn ci ay aada yàlla xamal ne ne loolu du dëgg alxuraan ñëw pour corriger erreur yooyu nga xam ne nit ñi dañ koo jàng ci histoire ba pare donn ko am na ñoo xam ne njuumte yi ñu donn tey ci Sénégal waxuma sax àddina bi mais fii ci Sénégal rek donn nañ ay crimes yoo xam ne yàlla rek moo nuy dimbali mu jeex mais du kenn du ko mën a dindi te dara amu ci ay caaxaan yoo xam ne dara amu ci te histoire du Sénégal bind nañ ko lu tax dara amu ci mooy boo demee université Cheikh Anta Diop foofu ñu naan IFAN ñoom ñoo doon bind histoire du Sénégal tubaab yi mais da ngay fekk ci biir foofu loolu ñuy wax loolu waa Sénégal di wax amu fa ah mais terewul tey ñun suñu dund gëm nañ ko ba nga xam ne pour ñu génn ci musiba naaru laay la léegi nag histoire yonent yi dañoo ñëw pour corriger erreur yooyu nga xam ne nit ñi dañ koo dund ci seeni maam ak seeni njaboot nit ñi di ko dund yàlla wax ñu ne loolu dara amu ci pour ñu delluwaat ginnaaw waaye mbokk yi yemul rek histoire yonent yi yemul rek yàlla dañu ko nettali pour waaye yàlla dafa ñëw di corriger suñu dund di corriger waat histoire ci boppam pour mu mën a leer loo fi mën a fekk ci àddina bi nit ñi wax ko ñëwal ci alquran nga liir su fekkee alquran dëggal na ko nga xam ne dëgg la mais saa yoo liiree mu juuyoog alquran bàyyil doy na misaal beneen da ngay jàng ñu naan Isa doomu yàlla la loolu bind nañ ko ci ay téere tey boo ñëwee ci alquran lan la la alquran di wax est ce que loolu am na yàlla mu ne la loolu amul nga delluwaat nga xam ne kon li la yàlla wax mooy dëgg waaye nit ñi liñ bind dara du ci dëgg nekkul ne lépp lu ñu bind rek dëgg la mbokk yi bokk na ci li tax yàlla dañu nettali histoire yonent yi pour ñu mën cee waaru aussi wa aidan mawiza wa zikra lil muminin pour ñu mën a waaru pour ñu mën cee fàttali fàttaliku ci xam ci borom bi ne tilka rusul faddalna baaduhum ala baad minhum man kallama allah wa rafaa baaduhum darajat wa atayna isa bna maryam albayinat wa ayyadnahu bi ruhi alqudus walaw saa allahu ma iqtatala allazina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum albayinat walakin ikhtalafu faminhum man aman wa minhum man kafar walaw shaa allahu ma iqtatalu walakin allah yaf'alu ma yurid bokk na ci li tax yàlla dañu nettali histoire yonent yi yàlla mu ne yonent yooyu ngeen di dégg yemuñu daraja faddalna baaduhum ala baad yemuñu dañoo rawante ay grade loolu loo ciy dégg mooy nit ñëpp tolloowuñu yemuñu xataa yonent yi yàlla yemalewu leen am na ñoo xam ne yàlla dafa yëkkati seen daraja ci ñoom am nañu yàlla waxal isa bnu mariam de gis ngeen yàlla tabaraka wa taala li mu ko may mooy yàlla def ko ruhul qudus Moussa yàlla li mu ko may mooy yàlla wax ak moom borom bi ne su ma neexoon mooy nit ñi duñu reyante ci kaw suuf waaye am na ci ñoom ñoo xam ne gëm nañ am na ñu weddi moo tax ñu wuute am na ci ñoom ñu gëm am na ñu weddi bu neexoon yàlla duñu reyante waaye yàlla mooy def lu ko neex bokk na ci encore li tax yàlla di ñu nettali histoire yonent yi hadihi al qisas allati jaat fi kitabillahi azza wa jal ibra wa iza liman kaana lahu aqlun yatafakkaru bih yaqulu jalla wa ala laqad kaana fi qisasihim ibra li ulil albab ma kaana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladi bayna yaday wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahmatan li qawmin yuminun borom bi tabaraka wa taala nee na maa ngi leen di nettali histoire yonent yi ci sama téere bu mag bi muy alquran pour ngeen waaru ci pour ngeen yéemu ci kan moo ci waaru kan moo ci yéemu yàlla nee na ku am xel xel moo xam ne daf ci xalaat soo jàngee histoire Moussa ak Firawn bu fekkee am nga xel bi nga xalaat di nga xam ne dëgg-dëgg yàlla mooy yàlla lan moo tax yàlla mooy yàlla mooy yàlla programme na programme am Firawna ay njabarkatam trouvé nañ li nga xam ne programme bi nga xam ne yàlla def na ko trouvé nañ ko ni am na benn xale buy juddu su juddoo dina folli Firawna Firawna ban programme la tëral mooy ku góor ku juddu nañ ko rey ku jóor ku góor ku juddu nañ rey tey bu doon doomu aadama moo programmé programme boobu nga yëg ne yow dangaa war a dem benn place dem fayeku ji xaalis mais nga yëg ne am na ay band yu ko yëg te pareel nañ la jël nañ seeni arme est-ce que di nga dem sa xel nangu na nga dem sa xel nanguwul nga dem yàlla programmé ne Moussa day juddu Firawna programmé ne ku jóor ku góor ku juddu dañ koy rey waaw moo la ne yàlla du nit moo tax yàlla bàyyi programme bi mu jàll li gën a garaaw mooy yàlla bàyyi programme bi Moussa juddu yi li gën a yéeme mooy yàlla jël Firawna dem Moussa dem dénk ko Firawna ne ko yaa koy yar te Firawna dañu ne woon xale bu góor bu juddu na ko rey waaye yàlla dem dénk ko ko ne ko am lu mu yaa koy yar te fi Moussa bi mu juddoo juddoo na fu Firawna fekkewul mënoon nañ koo jël nëbb ko ci benn àll ci benn xur ci benn kaaw waaye déedéet yàlla dafa wax yu yaayu Moussa ne ko def ko ci kees kees yi nga teg ko ci ndox mi ndox mi dina ko yóbbu kër Firawna moom moo na yàlla mooy yàlla loolu moo tax yàlla dañuy nettali histoire yonent yi pour ñu am sabaat ñu xam ne adduna bi lu nit ñi di bëri bëri doole lu band yi di bëri bëri bëri bëri jullit bu amee ngëm kenn mënu koo yëngal waaye boo amee ngëm ndax is du hasard gars yi di wax tey na ngeen fexe alxuraan bu ko kenn jàng parce que xam nañu alxuraan balluwaay la boo xam ne moom mooy defar jullit nit su bëggee baax jullit su bëggee baax day gëm alquran su gëmee alquran rek affaire yëpp day baax addunaam ak àllaaxiraam borom bi tabaraka wa taala mu ne laqad kaana fi qisasihim ibra li ulil albaab lii rek doyoon na yàlla nee na nekk na ci histoire yonent yi ay kéemtaan ay waaraate ñeel borom xel yi borom xel yi bu ñu gëstoo histoire yonent yi xoolal diggante yonent yi ak ñeneen ñeneen ñi lu mbir mi yàgg yàgg yàgg lu mu métti métti métti yonent yi ñoo gañe xoolal buur bu toll ne Firawna Moussa daaneel ko bëccëg xoolal buur bu toll ne Namrud Ibrahima daaneel ko wa qatala Daawud Jaalut xoola Jaalut moom la Europe moom la français yi naan Goliath waajoo yi nga xam ne ay maître yu ngand la woon ci kaw waaju rëy waaye daawuda rey ko bëre bi diggante yonent yi ak ñi dul yonent ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon di gàllankoor yoonu yonent yépp lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg métti ñan ñoo am victoire ñi yàlla yónni woon moo tax yàlla mu ne laqad kaana fi qisasihim ibra waaye kan moo ci jële waar mu ne li ulil albaab ñi nga xam ne ay borom xel lañ yàlla mu ne lii maa kaana hadisan yuftara lii du ay waxtaan yu ñu yu ñu sos du ay léeb yooyu ngeen di jàng ñu naan léebu sàmba gelaa jéegi déedéet du loolu du ay léeb yooyu ngeen dégg mag ñu naan mag ñi doon ko nettali di ko léebal xale yi déedéet walakin tasdiqa alladi bayna yaday lii dafa ñëw di dëggal li ko passé woon ginnaaw ak li nekk ci kanamam wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahma li qawmin yuminuun qisasul anbiya histoire yonent yi dafa ñëw di la nettali di la leeralal mboolem lënt lënt yu amoon ñu leeralal la ko waaye mboolem soo bëggee jub yàlla wax na le boobu roppee yonent yi da ngay jub ulaika alladina hada allah wa bihudahum iqtadi yonent yi laa defar ñu baax soo bëggee baax toppal yonent yi kon histoire yonent yi mbokk yi nekkul lu ndaw loo xam ne jullit war na koo bàyyi ginnaaw ci dundam abadan al anbiya alayhim salaam masabihul huda humul uswa wal qudwa ulaika alladina hada allah fa bihudahum iqtadih سر على هذا المنهج واتبع هذا السبيل أرسلهم الله تعالى تترى في بد- من بداية الخلق تتابع الرسل والأنبياء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عدد الرسل زاد على ثلاثمائة وعدد الأنبياء زاد على ألف وأربع وعشرين mu ne yonent yi alayhimu salaam ay làmp njub lañ làmp njub ñoom ñooy jubalaate waaye ñoom ñooy royukaay yi moo tax yàlla jubal yonent bi alayhi salaatu wasalaam baaraam ne ko ñii laa baaxal soo leen toppee baax yonent yépp ñi leen topp dañoo baax déggoo benn yonent ñu ne ki ko toppoon bandi la wala agresseur la wala reykatu nit la wala rappeur la woon wala musicien ban yonent ngeen jàng ñu ne ñi ko toppoon baaxuñu yonent yépp ñi leen gëmoon dañoo baax lu tax yonent bi yàlla nee na ay làmp lañ làmp lan lay jëriñ làmp yi tiim ñu lan la ñuy jëriñ di ñu leeralal kon yonent yi ay leer lañ waaye ay royukaay lañ ku leen topp rek daal di baax yàlla ne ñoom laa baaxal ku leen topp baax loolu moo tax yàlla mu ne ko doxal ci yoon wi yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam sir ala hadha al manhaj doxal ci yoonu yonent yi gis nga am na fu yàlla wax yonent bi ci alquran fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul muñal comme yeneen yonent yi niñ la fi jiitoo woon kon hatta yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla tabaraka wa taala daf ko jubal ci yoonu yonent yi pour mu jaar ci pour mu jub ñun ñi bu ñu bëggee baax ci ban yoon la ñuy jaar ci yoonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñu ci jaaree rek daal di baax borom bi tabaraka wa taala mu ne yonent yi dañoo toppante yonent yi ak ñi yàlla yónni démb oustaz maam mu ngi leen doon wax ne diggante rusul ak nabi démb am na lu mu ci leeral mu ne ñëw na ci hadis alayhi salaatu wasalaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li mu yonent yi ñetti téeméer la limu ñi nga xam ne nag dañ leen a solo mu ne nekk na junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk muy cent vingt quatre mille cent vingt quatre mille ñi yàlla solo ñi nga xam ne dañ leen a yëg dañ leen a wax yu mooy ñoo ñuy wax ne dañ leen a wax yu te yónni wuñu leen ak ñi nga xam ne dañ leen a yónni mu ne bu dee ñi yónni la ñooñu ñetti téeméer lañu nee na saa yoo xamante ne ci banu Israil yonent dem na beneen yonent day ñëw kullu ma maata nabi qaama nabi mu ne maa yaxlu min al anbiya wa kaana ahyaanan fi zamanin wahid fi baladin wahid salaasa aw arba anbiya yàlla tabaraka wa taala ni mu doon yónnee yonent yi amul benn jamono boo xam ne yonent ñëwul wa in min umma illa xala fiha nazir wa laqad baasna fi kulli ummatin rasul an ibudu llah wajtanibu taaxut amul benn xeer rek bu mos a ñëw rek te yonent ñëwu fa saa yu yonent ñëwee beneen bu yonent bi deewee beneen yonent ñëw yenn saa yi sax ci jamono di nga doon gis benn dëkk boo xam ne ñaari yonent ñoo fa nekk wala ñetti yonent loolu jàng ngeen ko ci suratu yaasin Hmm? ci suratu yaasin jàng nañ borom bi tabaraka wa taala ne yónni naa yonent gaa yi lànk dëgër bopp ma yónniwaat beneen yonent gaa yi lànk dëgër bopp beneen yonent troisième ñëw di dimb di ko dimbali kon gis nga waaw lan mooy sababu yàlla yónni yonent yi rek luy sabab bi yàlla yónni gi mu yónni yonent yi lan lan la lan la ci bëgg ndax amul amul amul amul lu tax sikk nekku ci ne am na lu tax borom bi tabaraka wa taala mu ne ñoom yonent yooyu yàlla yónni na leen arsalahumullahu taala li inqaazi albashariya yàlla yónni na leen pour ñu xettali pour ñu sauver xeet wi gis ngeen yonent bi lan moo tax yàlla yónni yonent bi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yàlla dafa yónni yonent yi pour yonent yi ñëw sauver nit ñi ndax nit ñi suñu leen bàyyee gis ngeen nii rek la ñuy mel nii nii li nekk suñu kanam nit ñi suñu leen bàyyee nii rek la ñuy mel yàlla yónni yonent yi pour yonent yi ñëw jubanti nit ñi xamal nit ñi lan moo tax yàlla bind leen xamal nit ñi lan moo tax yàlla indi leen ci kaw suuf du fo kon yonent yi dafa am lu tax yàlla indi leen fi mbokk yi wa kullama waajahat albashariya inhirafan jaa al anbiya wa rusul alayhim assalam liyunqizu albashariya wa yusahihu almasar saa yoo xamante ne nit ñi dëng nañ yoonu yàlla tabaraka wa taala yàlla tànn benn yonent yónni ko pour lan pour mu ñëw jubante xeet wi kon ndeke yonent yi alayhimu salaam am na sabab lu tax yàlla yónni leen saa yu nit ñi jàddee yoon saa yu nit ñi dëngee yàlla yónni yonent yi pour ñu ñëw sauver xeet wi daal di leen di jubalaat aadama moo njëkk a ñëw aadama bi mu ñëwee ba jeexal ku ci tegu kon sababu li tax yàlla yónni yonent yi alayhi salaam mbokk yi dafa am mooy lan pour ñëw jubanti doomu aadama yi daal leen di tegaat ci yoonu njub tegaat leen ci raay bi saa yu yàlla yónnee yonent nit ñi jàdd yàlla yónni waat beneen yonent saa yu yàlla yónnee yonent yonent ba baaxal nit ñi daal di jàddaat yàlla yónni waat beneen yonent ki ci njëkk ki ci njëkk mooy aadama kan moo mujjee ñëw mooy muhammad alayhi salaatu wasalaam kon am na sabab lan moo tax yàlla yónni yonent yi waaye yonent yi ñëw nañ mbokk yi di yenu di yenu ay lor yoo xam ne nit ñi lor nañ leen ko xoole yonent yàlla nu wax woote na junni at yu manqué juróom fukk li ko gëm tuuti la junni at yu manqué juróom fukk xoolal diggante Moussa ak Namrud xoolal diggante yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak waa Quraysh kon yonent yi ñëw nañ yenu ay lor yu bëree bëree bëree bëri bëri ci woote gi ñu doon woote dañ leen a lor moo tax képp kuy woote kat nga jàpp ne da ngay woote te doo am problème yaa ngi nax sa bopp ndax yonent yi ñoo la gën te bi leen yàlla yónnee ñu ñëw di woote mbugal nañ leen teg nañ leen ay lor fitnaal nañ leen am na ci ñoo xam ne sax dañ leen rey ci ay yonent gis ngeen Ibrahim yàlla moo ko sauvé sinon lakkoon nañ ko Yusuf sànni nañ ko ci teen Moussa wax nañ ko dafa xuuxaan Firawna dàq na ko ba mu traversé géej ah Isa dégg ngeen su fekkoon ne du yàlla tabaraka wa taala tey moom ngeen dégg ñu ne dañ koo rey christifié ko su ko yàlla weddiwul woon kon yonent yi alayhimu salaam dañoo sonn ci kaw suuf lu tax li leen yàlla yónni ne dem leen ngeen defar kaw suuf biñ ñee bëgg a defar nit ñi te terewul xoolal fu ñu bëgg a dugal nit ñi rek mooy aljanna te terewul dañoo sonn kon ñun ñii bu ba ñu bàyyi xel ni mënuñoo jubal nit ñi te sonn ñu foog ñu sonn pour nit ñi jub waaye mbokk yi histoire yonent yi alayhimu salaam dafa ñëw di ñu jàngal pour ñu muñ ñu xam ne nañ sonn ci kaw suuf mais ñu muñ yonent yi dañoo muñ hatta yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaa def ko joxoñ wax naa leen sànq ñaata aaya ñoo ñëw ci alquran di wax yonent bi sabr fasbir sabran jamila fasbir kama sabara jàngeen alquran yàlla mu ne ñi nga xam ne musiba dafa dal seen kaw alladina isa asabatu musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa ulaika gis ngeen kon yonent yi yàlla def daf ñu leen yónni pour ñu jàngal ñu ni ñuy muñe pour ñu mën a muñ waaye ndax loolu kese la waaye yonent yi yàlla yónni na leen pour ñu ñëw lan jàpp ci loxo doomu aadama yëpp dugal leen aljanna mbokk yi yonent yi alayhi salaam amul benn xeet boo xam ne passé na lu dul yàlla yónni dafa yonent hadihi alqisas tatamayazu bi annaha qisasun waaqii laysa fi nasdi alxiyaal comme li na waxoon sànq mooy histoire yonent yi nekkul ay léeb léeg-léeg nga gis ci jamono ñu ne dañuy def benn ngonnal xam ngeen ngonnal loolu bu ngeen demoon ci dëkk kaw yi da ngeen di fekk ñu taal matt ci dëkk ci dëkk bi nit ñëpp ñëw toog ñu indi benn màgget muy léeb bu fekkee ci rajo yi la ñu indi benn historien ñu ne kii lan la am na tur sax yu ñu leen di tuddee géwél yi géwél ñi nga xam ne ay géwél yu mag la ñu ne ñoom ñooy ñoom ñooy nettali histoire yi communicateur traditionnel ñu ne communicateur traditionnel yi ñooy ñëw di nettali nit ñi histoire yi alors histoire yonent yi nag du loolu moom bokkul ak xisa yooyu nga xam ne amoon na donte ne ñooñu xisa yi ñuy nettali yenn saa yi am na ci yoo xam ne dëgg la mais am na ci yoo xam ne comme comme li Paba doon wax keroog ci gellaay aalifaal ah histoire yooyu mu doon nettali yooyu ak alxuraan du benn alxuraan moom dëgg la gu wir yàlla moo bind addunaam wàcce fi ay nit am loi bu mu fi tëral nit yàlla bi mu wàccee nit ñi nit ñi wàcc kaw suuf di jàdd yoon yooyu yàlla jël ci ñoom nit ñooñu ay nit yu baax di leen yónni pour ñu jubal kon bu ko kenn jàpp ne ay léeb la laysa xiyaaliya wa innama hiya qisasun hadasat fi ardil waaqi dafa nekk ay histoire yoo xam ne dafa xew ci suuf si ñuy dund histoire Moussa ak Firawna fan la xewoon ndax amul place bu mu xewoon ban place la woon Misra Égypte tey boo demee ñu ne la géej gii la Moussa dóoroon yat bi mu ubbeeku Moussa daal di jàll ba waa Firawna topp ko soo ñëwee ñu ne la Firawna moomu mu ngi nii waxuma la sax loo fa sori mais boo ñëwee léegi internet ñu war na Firawna am na ñoo xam ne sax téléchargé nañ ko seen portable di la woon Firawna mu ngi nii tëdd kon nga xam ne yàlla li mu la wax dëgg la histoire yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam ak waa Quraysh fan la woon kaw asamaan boo demee Màkka léegi nga gis ñu ne la kër Abu Jahli na ngi nii soo demee Uhud ñu ne la fii la yonente bi taxawoon gaa yaa ngi nii mani la partout dans le monde soo wëree tey ci golfe bi ah soo demee Yaman Yaman wala nga dem Syrie wala nga dem Irak ah da ngay dem léegi Irak ñu ne la gaalu yonente yàlla nu fii la teeroon ci place bi tudd Juudi kon histoire yooyu réel la lu amoon la ci kaw suuf sii la amoon nekkul beneen monde ci déedéet sunu àdduna bii ñuy dund la histoire yonent yi amoon alayhimu salaam mbokk yi mu nekk yoo xam ne waaqii la aashaha albasariya fi fatarati xayatihim xayatiha almuxtalifa histoire la yu am yoo xam ne nit ñi dund nañ ko ay histoire yu wuute ci place yu wuute ndax yonent yàlla muhammad ibrahim fan la juddoo iraq fa la ko yàlla yónnee waaye gis ngeen daanaka wër na golfe bi jóge na foofu iraq dem ba Palestine jóge Palestine dem ba Makka li xool nu muuree kon histoire yooyu mbokk yi ci suuf si la amoon mu nekk lu dëggu ci ay place yu wuute waaye nekk na histoire yoo xam ne zaatu ibar laysat qisas li taraf wa tasalli wa innama mamlua bilqisas allati taxmilu almaani walibar li ajli an nasira taxta alladi xallafnaahu ala hada almanhaj wa naqtadi bihim mbokk yi histoire la yoo xam ne yu am ay kéemtaan la yu am ay waaraate nekkul luy dalal xel nekkul encore luy kontaan loo nit di ko bigloo ndax am na ci histoire yoo xam da nga koy lire ci ay roman loo koy doyee mooy day daf lay loolu xale yi naan soo lekkee ba bëgg a fër nga lire nga tëdd jaaxaan ñu jël benn roman di lire ngir lan ngir nga noppalee ko ah ngir nga déseroo ko noonu la aaya alxuraan bi du loolu xisas yonent bi du loolu yii lu dëgg la loo xam ne yàlla moo ñu ko wax mu am ay mbir yoo xam ne ay maanaa yu ci nekk ak ay kéemtaan yu ci nekk pour ñun ñi ñu mën a jaar ci yoon boobu lan moo lay may doole yow jullit pour nga mën a def dëgg gi la yàlla wax soo jàngee histoire yonent yi kon tey amul benn buur buy taxaw ci sa kanam wala nit kuy taxaw ci sa kanam wala papa wala yaay wala benn mbokk buy taxaw ci sa kanam ba doo dund dëggu yàlla ndax yonent yi am na ñu taxaw seen kanam ne leen li ngeen bëgg du fi am mais terewul yonent yàlla yi alayhimu salaam jàlle nañ li yàlla bëgg da ngay xam ne képp kuy jaay doole yàlla moo la ëpp doole te yow yàlla nga àndal am nga foo wéeru te ku am foo wéeru ku la bu max daaneel la du yomb ku ànd ak yàlla rek am nga foo wéeru yonent yi dañoo wéeru woon ci yàlla tabaraka wa taala loolu moo tax seen woote daal di jàll li leen yàlla yónnee woon ñu taxaw ko mu daal di réussir kon loolu moo tax yàlla dañuy nettali histoire yi ngir ñun ñi ñu mën a jaar ci yoon woowu ñu daal di leen di roy waaye mbokk yi ngir aussi ñu mën a moytandiku njuumte yooyu nga xam ne am na ci diggante nit ñi ak yonent yi ñu mun koo moytandiku tey nit ñi bu ñu toppoon yonent yàlla Muhammad bidaa yi ñuy wax fii ak shirk yi nangam nangam yëpp kon du am mais lan moo tax ñu ñu loolu am parce que dañoo bàyyi alxuraan misaal rek laay joxe ci bàyyi bi ñu bàyyi alxuraan toppuñu ko ci Sénégal gis ngeen fi ku am juróomi jabar wala gisu leen ko du ngeen ma tontu loolu da ngeen ragal gis ngeen ko ëppal juróomi jabar yàlla ñaata la wax ci alxuraan ñeent léegi ki takk juróom ak juróom benn ak juróom ñaar ki am njaga njaay kooku lan moo tax dafa bàyyi alxuraan xamul alxuraan kooku benn dong la gis ngeen ci alxuraan yàlla mu ne yonent yàlla muhammad mooy yonent bu mujj gis ngeen ko wala gisu leen ko yéen waa Sénégal est ce que am ngeen yonent wala amu leen ko bi ngeen fii Sénégal ñuy woote ne ay yonent la am na ci ay góor am na jigéen fii jigéen sax woote na fi ne ak yonent la lu ko waral nit ñi dem gëm ko ñooñu di woote ay yonent loolu moo tax nit ñi dem gëm leen.
amuñu alxuraan.
mooy dañoo bàyyi alxuraan mbokk yi bu leen di noppi. beneen yàlla tabaraka wa taala dafa wax nañ julli ci alxuraan mais gis ngeen fi mbooloo yu dul julli lu tax ñooñu ñemee bàyyi julli lu tax. lu tax doo tontu lu tax ñooñu bàyyi julli dañoo bàyyi alxuraan mbokk yi ma ni gis ngeen fi yàlla mu ne màkka la ñuy aji ay nit ñu ne màkka jarta dem lu tax loolu dañoo bàyyi alxuraan très bien mbokk yi ma ni gis ngeen fi yàlla mu ne dañoo war a woor nga gis ku ne man wooruma damay joxe ndogu lu tax dañoo bàyyi alxuraan loolu rek mooy suñu problème tey bu fekkoon ne ñu ngi jàpp ci alxuraan rek mboolem woote yooyu di woote parce que ku woote rek da ngay xool da ngay peese alxuraan alxuraan peese ñaata balance lay am balance su peese ñaata palaat lay am ñaar jullit am na ñaari palaat yooyu alxuraan sunna suñ la joxee benn rek peeseel tegal waa ji ne la nit war naa am juróomi jabar nga jël teg ci balance bi nga gis aiguille bi ne la dee dee dee dee dee dee dee dee nga xam ne dëgg nga ni ko jëlal jëlal keneen ñëw ne la jullit bi war naa bañ a bañ a julli nga teg ci balance yi aaya bi ne aiguille bi ne déedéet déedéet déedéet mu daal di jéngi dem ci aaya bi aqimu salaa nga ni ko jëlal jëlal jëlal keneen ñëw ne la màkka jarta dem nga teg ci palaat bi aiguille bi ne déedéet déedéet mu daal di jéng walillahi walillahi ala nas nga ne ko jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal voilà jullit day peese am nga foo peese soo tegee gisoo ko ci alxuraan rek demal ci sunna da ngay gis su ko defee doo réer mais yow ku indi rek nga yor sa saak di jël lu ko waral mooy bàyyi alxuraan moo tax yàlla di ñu netteel histoire yonent yi pour ñu mën leen a roy xam ne lu dul yàlla neen la yonent yi am na ñu ngand ay yéeféer ponkal yu taxawoon seen kanam yonent yi xoola ku tol ne firawna mu ne ana rabbukumul aala maay yàlla ju ngand ji yemu ci de mu ne maa alimtu lakum min ilahin ku ma dégg fii nga ni yàlla am na dama lay rey man maay yàlla Moussa ne ko doo yàlla moom Moussa moom Moussa ba Moussa ne ko rëll daaneel ko te Moussa benn nit kese la benn nit mu ngi ànd ak rakkam keroog ba ñuy concours ci biir stade bi dinañ ñëw ci histoire bi Moussa mu ngi ànd ak rakkam ñoom ñaar kese stade baa ngi fees mel ne stade bii nit ñi di yuuxu Moussa kese cundung gars yi di ko yuuxoo xanaa foofu yaramam mu noon naa daw ndeysaan waaye xoola Moussa bi mu tiitee yàlla moo ko dee ne ko eh bul ragal yaa ngi ànd ak man bul tiit tum mu daal di taxaw waaw mu ngi noonu tey yow ah lan mooy lan moo may yonent yàlla Muhammad fit fit muy bind ay buur lettre naan leen tuub leen ay buur buur yoo xam ne jamono yi kenn ñemewu leen yonent yàlla Muhammad bu doon bind tey bu doon dund tey bind na Barack Obama lettre ne ko tuubal bind na Ablaye Wade lettre ne leen tuub leen mais xoolal ñun ñemewuñ bind fi mu nekk nii soo ñëwoon léegi sama kër fekk man la dama bëgg a bind président lettre danga kii kii moo sob yow yow loo koy dee ah ñooñu sax dañoo sori mais ñeneen ñu ndaw fii rek ay ay woykat yu ndaw ndawaan yi wala bëri mbëri yi mbëri yi tey su ma ne woon dama bëgg a bind bi Balla Gaye lettre pour mu tuub i ku ne ba bul sonn du la faale bul sonn kenn du la ne bindal te yonent bi def na loolu kon yàlla loolu moo tax mu ñuy nettali histoire yonent yi waaye mbokk yi وفي هذه وهذه القصص عندما نتعمل فيها سنجد أنها محور التاريخ البشرية يدور حول الأنبياء bu ñu jàngee tuuti ñu settantal danañ gis histoire yonent yooyu lu soppi histoire la dafa ñëw histoire yonent yi dañuy ñëw fekk nit ñi di jaamu benn benn buur benn nit di ko xoolal noonu ñëw na fekk ay nit di jaamu ay xërëm yu ñu tabax ñu ñëw ne leen lii du dëgg bouleverser affaire bi affaire bi nekk ñaari groupe ñi ànd ak Nuux beneen monde bi yépp ànd ak bokkaalekat yi kon chaque jour histoire yonent su ñëwee dafay dafay dafay changer lam fa fekk noonu la Moussa bouleversé dund Firawna noonu la Ibrahima bouleversé dund Namrud noonu la yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam yàqi xërëm yi ñu doon jaamu ci kaaba gi ndax ñëw na fekki waa Quraysh wax bind seen i wax yu garaaw ne alihatu Quraysh tijaara wa ibada waaye fu mu mujj yonent yàlla Muhammad ñëw dindi ko fa yàllaay Quraysh jaamu yàlla la waaye ak commerce du jaamu yàlla kese kese mais dañuy commerce waale ci biir yàlla chaque jour chaque jour bu yónnee yonent yonent ba la mu fa fekk day xeex ba loolu dañ mbokk yi histoire yonent yi yonent yi fekk nañ fa ay buur al muluk wal qiyaada al askariya bokk na ci li ngay jëlee histoire yonent yi di nga jàng histoire ay buur yu rëy wala nga jàng histoire ay nit yoo xam ne ay historien lañ wala ay nangam nangam waaye dëgg-dëgg li ngay jëlee ci histoire yonent yi doo ko jëlee ci histoire buur yooyu li ngay jëriñoo ci histoire yonent yi doo ko jëriñoo ci histoire gaa yooyu ñu lay nettali. am na benn téere bu tudd alfu layla wa layla ah téere ba boo ko jàngee ay nettali kese la waaye boo jàngee histoire yonent yi di nga xam ne histoire yonent yi ak histoire yooyu du benn téere boobu benn buur moo daan def day takk jigéen jigéen bu mu jébbale su xëyee suba rey la ku mu takk tey fanaanoog yow buy fajar jot mu rey la jigéen bu mu takk tey su fanaan ak yow rey la loolu rek mooy métier moom léegi nag ñu boole ko benn jigéen mu takk jigéen bi bi mu fanaanoog jigéen ji ndaw si nettali ko benn histoire dem ba fi histoire bi neexee ndaw si dagg ko comme nit ñuy def ci film yi xam nga film yi yi ñuy tegal télé dañuy teg film ba fu ba waa ji fu muy garaawee waa ji génn pistolet ne nii rek ñu ne ko tip ne la suba waaw léegi nag suba ñuy noddu de suba nga ni ñu ngi noddu film bi commencé na nga ni dama seetaan film ba pare ma doog a julli gis nga ni la tubaab bi di def léegi noonu la ko tubaab loolu la ko ndaw si def su ko ndaw si nettalee histoire ndeysaan ba fu mu neexee rek mu dagg ko ne ko ba suba léegi nag munu koo rey foog mu ne day xam lu ci tegu noonu la def ba ndaw si mucc lu histoire yooyu xoolal boo ko jàngee da nga koy gis ci téere boobu mais boo jàngee histoire yonent yi di nga xam ne yonent yi li ñu def ci kaw suuf amul kenn ku ko def loolu moo tax ñu war ko jàng ñu war ko déglu bu baax a baax a baax mbokk yi lan nastati an nafhama taarix ida lam naarif qisasul anbiya mënu ñoo xam histoire benn yoon ci àdduna bi bu ñu jàngul histoire yonent yi pour nga xam àdduna ba nga jàng histoire yonent yi yàlla wax la àdduna bi fu mu commencé balaa aadama di ñëw ci kaw suuf lan moo fi nekkoon suuf si bal balaa suuf di am yàlla di la nettali nga tàmbale foofu balaa suuf di am yàlla di la nettali balaa suuf am balaa asamaan am balaa dara am ba bi suuf amee asamaan am yépp am malaaka am jinne am doomu aadama am yàlla di la nettali après nag léegi nag par benn benn loolu foo koy amee ci qisasul anbiya moo tax ku réere qisasul anbiya lu garaaw ci àdduna bi rëcc na la yu mbir yu bëri raw na la munu ñoo xam histoire àdduna bi te xamuñu histoire yonent yi moo tax foog ñu xam ko mbokk yi mu ne beneen li tax ñu war a jàng histoire yonent yi mu ne bëri bi nga xam ne moo fi amoon assira allazi yajri fi dunya aynama huwa siraaun bayna alxaq walbatil siraaun bayna atbai alambiya wa adaau alambiya alayhim salaam gis nga bu ñu jàngee histoire dinañ gis bëre diggante dëgg ak fen bi amoon démb ba tey jii moo am tey jii ñi ñi ñi yonent yi doon xeexal ñi yonent yi doon xeexal ñoom la fi seeni sët nekk di xeex ak ñi toppoon yonent yi déggu leen wax bi de déggu leen ko xaaral ma delluwaat ci ma ni ñi doon xeex ak yonent yi pour yonent yi du ñu taxawal li yàlla bëgg ñoom la fi seeni sët nekk di xeex ak ñi topp yonent yi bëri bi du jeex da ngeen yaakaar ne yonent yàlla Muhammad dem na léegi islam kenn xeexatu ko wala doon ngeen jàpp abadan ñi ñi doon xeex ak yonent bi alayhi salaatu salaam muy waa Quraysh lan lañ ko waxoon ajaala al alihata ilahan wahid inna hadha la shay'un ujaab lan lañ ko waxoon in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna yàlla amul dañuy dund dee rek bu ñu dee jeex na ab après dara dootu xew ëllëg alaxira amul mais tey loolu moo am nekk ate ne yàlla amul ñenn ñi moo waxu waxuñu ne sax yàlla amul dañu ne yàlla am na mais yàlla ak il faut yàlla ak a jaalal alihata ilahan wahid da nga bëgg def yàlla kenn ah loolu mënul nekk non yàlla il faut mu am leneen lu ci taq ndax yàlla kese kese kese dafa ri tax doo dégg loolu ñu ne yàlla kese dafa ri tax soo jàppee ci yàlla kese maanaam yàlla day xëcceeku nga yow dootoo jàpp dara il faut yàlla ak leneen mooy nga gëm yàlla takk benn ndomb fii wala benn béjjén fii wala nga am tuur ci biir néeg bi wala wala wala wala comme nu ngeen ko xamee kon diggante bi xeex bi ñi doon xeex yonent yi ba léegi ñoom la fi seeni maam nekk di xeex ak ñi toppoon yonent bi bëri bi noonu rek tey gis nga mbooleem idéologie yi am ci kaw suuf dafa opposé l'islam mbokk yi ba tey bu waxtu wi jotee ngeen signalé ma wa kazalik annaka la tastati an tafhama alquran illa iza arafta qisas al anbiya mbokk yi mënuñoo xam alquran te comprendre ñu histoire yonent yi mosoo gis koo xam ne dañu ne kii boroom xam-xam bu ngandal la li yàlla wax yëpp xam na ko te comprendre lu qisasul anbiya musul nekk munul nekk saa yu waa ji nekkee boroom xam-xam xam alquran li muy tekki mooy histoire yonent yi histoire boo ko laaj mu tontu la kon xam histoire yonent yi daf lay dimbali nga xam alquranul karim ndax histoire yu dëggu yi yëpp yàlla tabaraka wa taala mu ngi ko def ci alquranul karim bañ nañ ko sax ba dañuy wax ne histoire bi gën a neex ci alquran mooy suratu yusuf mooy histoire yusuf moo gën a neex ci histoire yi yàlla nettali ci alquran amul beneen bu ko gën a neex mbokk yi ba tey ci pour ñu xam histoire yonent yi alayhimu salaam ñaata aaya alquran ñooy wax histoire yonent di ko baamtuwaat ñaata ñaata aaya ñaata aaya la yàlla wax nuux ci alquran ñaata aaya la yàlla nettali waa banu israil ak Muusa ñaata aaya ñooy nettali mbiru firawna lu ëpp ay juróom-ñaar fukki aaya kon ki nga xam ne jullit bi nga xam ne sàggane nag ba qisasul ambiya raw ko na yëg ne lu bëri raw na ko ci dund yonent yi na yëg ne réere na xam-xam bu bëree bëree bëree bëree bëree bëri képp ku réere histoire yonent yi na nga yëg ne daanaka mën ngaa ne réere nga genn wàllu aduna genn wàllu aduna réer na la kon doomu ndey yi incha allah lii mooy sunu première dars bu ñuy def introduction muqaddima ci qisasul anbiya ñu laaj ya- ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñu njuumte yi waaye mu may ñu wér ak kàttan ba talaata bu nekk incha allah ñu mën a daje ak fi ak yéen defal leen ko incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu fekkee am na ay laaj